asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu mbokku diaspora yi di nuyu ñi caabi féete ginnaaw di leen ñaanal yàlla na leen yàlla génne ci lu ñu nekk tey li ci biir kër gi dafa ñëw ak émission bu bees tàq ñu naan ko gaspiage gaspillage lañ ko war a tuddee yàq lañ ko war a tuddee xew xew jamono lañ ko war a tuddee ñuy waxtaan ci xew xew la ñuy waxtaanee tey di ci ànd ak suñu consultant vie vie euh, xam-xamam màcc ci wàllu Euh, xew ñu jox ko kàddu gi mu nuyoo. waaw soxna Racky ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di ñëwaat ci kër gi rek. Mhm. di nuyu téléspectateur FM TV yi. Mhm. di nuyu waa Grand Yoff di mhm. nuyu sénégalais yëpp. dina xamante lu si kër gi lu bees tàkk la indi Racky. waaw Bié euh, tey FM TV tey li mu indi tey. Bié doy na waar. moo ngi ci dëkk bi. monde entier di ko waxtaanee. góor ñi di ko jooy. yaay di ko jàmbat d'une part. Euh, ñu buggoon cee xam sa taxawaay ak sa gis-gis parce que tey jii ñu ngi waxtaanee xew góor ñaa ngi kaas xew yi yàq bi ci nekk jigéen ñaa ngi kaas xew yi yàq bi ci nekk est-ce que position normale bi ñu war a def ci xew ak ni ñuy defee xew est-ce que jamono ji laaj na ko wala laaju ko waaw tey maa ngi lay sant si euh, question bu ma posé nii di la xamal ne Racky xew yi léegi moom tendance la man sax damay ragal man man su ma toogee ak nit ñi sax ñu ne ma vie kañ ngay takk jabar damay tiit xam nga tax may tiit parce que jigéen ñi léegi dañu teg lu ñu antanul rek da ngay gis benn xale bu góor boo xam ne day taaba taaba tey amaa naka tey mun na imaginer kuy liggéenti fikk dërëm mm-hmm. ah juróomi dërëm tëla tey mu bugg takk jabar nga naan ko jox ma benn deux millions rek li <laughs> wala jox ma benn un million rek yi tey ñun lépp lu ñuy ñun tey li may wax rek mooy yéen jigéen ñi mm-hmm. lépp lu ñu dar suba ba jant so yéen nañu ko teg déedéet fii lu xëy loolu yow tamit non lu leer laa la wax ah, de nuñ leen ko tegee voilà lu ah. ngeen ñu ko tegee tey rek mhm. damay bëggan teg sa mhm. mhm. bëgg sa doom nga teg ma loo xamante ne damay tëdd di xalaat toog di xalaat di dox di xalaat da gis sax nit buy dox oto tël ko ñu naan kii xoolu bu muy jéggi fekk xoolal mi ngi xalaat lan lañ ko teg pour mu am jabar loolu yéen nañ ko teg. waaw mais jibi ji ji jigéen amul prix. ah non waaw jigéen amul prix jigéen moom. Mm-hmm. loo ca def. Mm-hmm. loo ca loo ko yéene. Mm-hmm. jar na ko. d'accord waaw sama gis-gis daal jigeen amul prix tey boo mayee sa soxna 2 millions. sa bopp nga ko defal. d'accord parce que yow sa sagla la tey jii. ñu ne tey so jabaru vie mu ngi ne wala vie moo doon takk fii jabar tey. tey la fay xew yëpp sa sag sama sag la waaw mais rek est-ce que sëy benn jour la. internalement la mhm. maanaam ñaan nañu si ñoom ñaar kenn suñ si moromam mhm. mais tey imaginel yow nga nekk góor dajale benn deux millions deux millions la sécurité deux million nga jël ko def ko si benn xew nga def ko si benn xew boo xamante ne benn jour la rek yow xalaatoo sa ëllëg sa ëllëgu njaboot xalaatoo sa jabar ji da ko war a dëkkal solal ko woddu ko dundal ko xalaatoo loolu de nga jël deux millions yi ne ko fa tag suba nga xëyaat di lijjantiwaat beneen deux millions bu ngay jàpp kii sa rek nga xam loolu mais vie nag cin bu naree neex su baxee xeeñ tey ji bu fekkee ne yow xale bu jigéen bi ñëwuloo may ko xaalis mhm. bu mu xewee bu sagoo ci biir ay nawleem mhm. est-ce que xale bu jigéen boobu dina ñeme pour dem sëy ak parce que nag euh, tey jii boo ñëwee di ma di ma takk tey di yow yaa ngi sóoraale li nga war a indi mhm. envers naan ay trois cent mille ak ay lii ay ay million yi ma teg ak nangam nangam ngay calculer calculer calculer boobu yàlla moo yor fi ni soxna te te dama jàpp ne jigéen loo ci def jar na ko jigéen amul prix timit est-ce que est-ce que timit euh, du ngeen taxaw seetluwaat xam ne timit du yàq est-ce que yàq la waaw xam nga tamit man du man a yàq la du mën a du yàq mais man li may bëgg wax man sama position si góor yàlla yi te man góor yàlla yee ma yee ma yee ma yëkkati mhm. sama position mooy ngeen def doucement rek mhm. man gis naa nit boo xamante ne dugg na kër jàmbur dawaa bëggante xale bi dafa daw xiit mhm. ngir luñ ko teg luñ ko teg ba man rek yi kooku bu mu ñëwee waxtaan Mhm. dafa ñëw imagine nga ñëw nit mu ñëw waxtaan un mois quinze jours ñëwaatul si biir kër gi parce que luñ ko laaj la la mënul ah loolu doy na waaye nag biyee waaye nag biyee yéen war ngeen a xam ne liw bi liw bi ngelaw li la mhm. ndax tey jii yéen yéen a ngi jàmbat li ngeen di indil xale bu jigéen ñi mhm. mais xale bu jigéen boo fi jox un million mbaa nga boo fi jox deux millions xam nga ne million ba ca yaay la dellu si yow ku góor ki xam nga loolu d'accord naa loolu xale bu jigéen boo fi may un million un million un cinq cent mille ba ji ah. mhm. ñu muur xale mu ñëw sëy si mhm. indiwul ndab indiwul bagage indiwul jasneer indiwul VIP mhm. sa yaay ne sama doom dem na ko takk jox na ko million million lañ jël yeggal ko foo xam ne yeggut fenn xale bu jigéen bi ñëw sëy tey ji ñu koy xas duñu ko gërëm parce que dañ naan ndeyam fi dara kon yéen seen millions yi ngeen di naw wala may naa ko deux millions wala jarul daw jarul daw ci ci yéen lay dellu si boo dee gisee jigéen ñi di laaj lu bari yaay yi di laaj lu bari fi jamono toll la. waaw soxna tey yaay bu ñu fi jox un million. waaw ah. abiyee ah ah. yaayam tegaat ci un million xale bu jigéen boo fi may un million yaayam teg na ci un million. d'accord na fi jamono toll. na xale bu jigéen boo fi jox un million yaayam teg na ci un million. ne am na lu gën a priorité loolu. da nga naan million million million million. Mhm. soit man mun naa tey ñoos bëgg sa doom. Mhm. nga dama koy takk. Mhm. ba ma ñëwee nga ne ma joxal sama doom deux millions léegi dafa mel dañuy jaaxale mhm. joxal sama doom deux millions mhm. aw ma kër mhm. aw ma vélo aw ma oto bu baax ma jël ñu jël par exemple yow tey sa xaalis tey boo xoolee li nga def sa xew ak ba ak man li ma def sama xew boo ko boolee day nekk cinq millions par exemple dama la jox par exemple rek cinq millions yi pourquoi pas tey bu ñu ko jëloon ngeen jël ko ne dem leen euh, demal par exemple jam ñaagu jënd fa terrain waa mais bii loolu loolu farata musuloo dégg fu diine waxee may ma rek may ma rek man dama lay nangul mais musuloo dégg fu diine waxee waxambaane bi boo amee tant at demal nga jënd terrain dañ ne waxambaane boo amee tant at demal nga joxi soxna waaw waaw soxna moo nekk farata ci yow boo amee tey jii vingt cinq ans trente ans demal nga wuti soxna nga ñëw yor ko parce que yàlla buggul nga ñun ñu def lu neexul yàlla buggul ñun mooy buggul ñu def ne parce que yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp mais balaa ngay wax investissement nga wax soxna nga wax njaboot nga wax fondé léegi bu jabar ñëwee ngay doog ko wax euh, soxna si est ce que du ñu def nii du ñu def nii ñu def nii am téene mais pourquoi calculer calculer calculer ay avenir nangam ba tax war a teral doo ko teral waaw waaw léegi soxna si soxna rek ma laaj la dara waaw man ma jël sa doom def si moom ay millions ma jël ko indi ko sama kër. mënu mhm. ma def si moom fukki dërëm ban moo la ci gënal. waaw nee nañ day euh, yor bu rafet moom. Mhm. moom yor bu njëkk euh, maye bu njëkk. Mhm. maye bu dëkk. waaw moo ma gënal maye bu njëkk. loolu moom olof Njaay wax na ko. waaye nag timit olof njaay tin dafa dellu waxaat ne cin bu naree neex laa la wax su waxee xeeñ te nag garab bu la sutul du la may ker tey ji du jël euh, benn samba booy boo xamante ne nii mhm. gisuma ko ci dara loo xamante ne lu concret la mhm. wala kii mu ndékkeem da koy taqale añam da koy taqale mu ñëw di ñaan sama doom ma may ko sama doom boobaa man maa koy yor yor sama doom certes mën nañ koo def sax nag euh, pour pour jaamu ci yàlla mhm. waaye est jaamu yàlla boobu di nga ko ci am ndax tey ji ne xolam seddul est ce que mën ju baax ci sëy jabar dañu wax dëkkoo dañu wax dëkkal dañu wax maanaam sama jàng sama xam-xam sa mais dëkkal dëkkoo ak lan yor da nga ko war a yor da ko war a yor da nga ko war a yor da ko war a yor da nga ko war a waddu mhm. da ko war a solal danga ko war a dëkkal waaw mais tamit rek yi rek c'est man li may wax rek man góor yàlla yi ñoo ma ñor ak ñoo xamante ne am duñ jabar dama bëgg rek ñu dimbali leen xamal leen ne maanaam xew benn jour la te sa jabar boo ko yore internement lay doon maanaam mhm. da koy jël Mhm. nekk ak moom ay ati ati ati at at mhm. comme yaakaar naa lu ñuy yàq si xew bi rek mhm. ñu yàq ko si dund ku jigéen bi man loolu moom ma gënal fokki junni yoon que ñuy jël benn jour def si ay million yoo xamante ne te léegi nag rek ma la dara xale yi saytuñ de xale yi saytuñ man da boo xamante ne da ngay def moom ay millions lay seel ah lu tax ñu ne eh, est-ce a di yor ah ah, ah a ngi leen di ah ñu ngi leen di téye bu baax a baax est a leen ñaari côté yëpp la ah. <laughs> ñaari yëpp la bu leen jël divorce bi xëpp ko xale yu jigéen <laughs> bu leen jël di ko xoole parce que suñu bàyyi woon mm-hmm. ak suñu frère yi léegi mm-hmm. duñu benn tey dañ naan feccam liir bu neexee yaay jaay jàpp ca mbagg ya tey jii boo fi yoree doom bu góor boo am sa âge bi tey bu yoree jabar yow yaa koy gérer jabar ji bien ci communication mm-hmm. ci nu ko war a yoree ci financièrement sax bëri na fi sa génération yu bëri yoo xamante say seen yaay moo jàpp ci seen sëy moo téye seen jabar bu du woon loolu jabar ja dem na bu quatre-vingt-dix-neuf pour cent xale yu jigéen yu nekk ci Sénégal dañoo matérialiste dañoo matérialiste dañuy dugg kër rek. Mhm. te xamuñu yàlla suñu borom dafa bind te yemalewul. dañuy dugg si rek gis si rek rek yor benn lal boo xam te ne day jël nangami million. Mhm. léegi lal boobu la ñuy ñëw imposé ko man mii nga xam ne mënumaa tëdd sax si pantere bu baax. dëgg la nga ñëw imposé ma ko léegi lan laa def. loolu moom dama ciy ànd ak yow ànduma ak yow sànq bale mais dama ciy ànd parce que nag bu njëkk. Mhm. seet daana wàcc ci kër di tëdd ci matelas at. dëgg bu njëkk seet daana wàcc kër di tëdd ci matelas rek lañ koy dugalal ci néeg atu yàlla ba sa jëkkër déewam ne dooleem ñëw mhm. mu mu mu mu am euh, loolu mhm. mu am kër mhm. wala mu am chambre à coucher wala mu am leen mais jamono tey moo toll foo xamante ne ci tamit yàlla xam doy na kenn mënut a wax lépp ngi noonu man daal li may wax daal mooy yaay ak yéen ñi nga xam te ne yéenay sëy nan wàññi affaire yi xam ne benn jour du juróomi at dëgg la benn jour du juróomi at de. Mhm. man daal lool laa la ni ñaan bu ñëwee ñaan ñu bëggante. Mhm. mais nañ yombalal affaire yi nañ leen yombalal affaire yi mais léegi moom macha allah moom <laughs> rek moom. léegi moom ah, ah, en tout cas daal en tout cas en tout cas vie yaa ngi naan nañ leen yombal nañ leen mais bu fekkee xam nga ne. cinq cent mille bu ngeen joxe deux cent cinquante mille dellu si na seen yaay yéen ñuy góor rek day neex mhm. mais tamit est-ce que duñu ñu duñu ñu def euh, tamit taxaw xoolaat timit comme ni nga ko waxee léegi dama lay fekk si hmm. parce que timit euh, wax naa ko léegi ci samay biir wax may bu dëkk moo gën may bu njëkk ñu wàññi li ñuy laaj hmm. xale yu góor yi yombalal leen ñu am soxna parce que tey da ngay gis xale bu góor bu am trente ans hmm. trente cinq ans war a jël soxna jëlul soxna soo waxee mu ne la damay xaar lii damay xaar lii damay xaar lii bëggu du takk doomu jàmbur di ko sonal yaa ngi dégg kon est-ce que tey waruñu def taxaw seetlu timit Euh, yombalal xale yi jigéen yi ñu sëy mhm. ak ñi ñu war a sëyal boo gisee sa doom di bëggante nga jaamu ci yàlla maye ko mu sëy te yàlla tax et puis defaraat éducation yar leen ci na ñu xam ne sëy jaamu yàlla la sëy du commerce sëy du du du marchandise boo xamante ne da nga ko war a ñëw imposer si jëkkër mhm. lii nga may defal boo ma ko defalul kii du ma def wala kii def na ah, jàkkaarloo bu doy waar comme yéen ni ngeen di yëngoo ci wàllu baax yi siège yeeg yooyu da mhm. nga ko war a def wala xale yi di sol imaginer nga tey ji ah, war a am xew sol juróom-ñaari mbubb gaspillage foofu la commencé mhm. imagine nga tey nga am xew sol juróom-ñaari mbubb nit ñi toog di la xaar ngay solo ko si mi solo ko man gis naa bu yàggul koo xamante ne xewam bañ fa demee nit ñi bi ñuy ñibbi moo leen naan e kaay leen toog pareegu ma imagine nga tey jii ñi nga xamante ne dañu am kilifa dañuy jóg ñibbi bàyyi la foofu yow nga toog di yàq yëre yoo xamante ne bu ci nekk boo ko bëggee solaat tey ji da ngay naan du ma ko sol xew jaam parce que dafa riche ah dal na ma dal na keneen dal na keneen dal na keneen est ce que tamit duñu taxaw seetlu xoolaat gaspillage yàq bi nga xamante ñu ngi koy yàq ci xew yi ñu wàññi ko fonde ci suñu avenir u doom non soxna Racky nag dugg nga si point bu ma neex mhm. man dama dem benn xew boo xamante ne benn soxna Racky mhm. soxna si xew bi bànneex la la mujj la njëkkee mhm. mais ay naqar la mujj imagine nga xew ba pare tëggkat sabar bi taxaw décorateur bi taxaw ku la jox ay ginaar taxaw coow li nag kur ci biir koñ bi te dafa lang cat ba cat lu jar loolu lu jar loolu taxaw ñu indil ko gàcce boo xamante ne man mi sax dama man mi sax dama ne non non lii mënul nekk lu jar loolu parce que parce que gis leen ma gis leen ma ak maa fi def xew bu rëy nii parce que rek def na fi xew boo xamante ne tendance la léegi rek baas na dix baas bëri na fi de man damay baas vingt baas li ngay wax ni bëri na fi de xew diw ba dinaa xew bu leen wala dinaa ko daanal ah. wala dinaa nangam dinaa nangam bu la taxee nag lépp ginaar <laughs> lépp décorateur lépp euh, caméraman lépp photo lépp nangam est-ce que na ko est-ce que du ñu def taxaw seetlu aussi hmm. xam ne yàlla hmm. mooy séddale hmm. li nga mën nga def ko li nga mënul nga bañ koo parce que farata bi yaakaar naa mooy sëy ci farata yàlla sunna su Muhammad ñu dellu si waat ci ci ci côté boobu waaw xale yu góor euh, euh, suñu doom yi jigéen ñi mhm. maye leen ñu yàlla tax te timit man daal xam naa ne ki fiy njëkk a dindi juróom ñaari mbubu juróom ñett mbubu ci xew ku ko mhm. fiy njëkk a dindi xam naa ne man dinaa la nawloo trop mhm. waaw naa la nawloo trop léegi su ko defee vie ma jox la kàddu gi nga euh, tëj waxtaan nuyoo wax sa dernier mot man daal li may wax daal mooy nañ xam ne yàlla suñu borom dafa bind te lew yàlla dafa may kii lu kii lu xaw ma kii lu na gàññi am na ñoo xam daan leen dara loolu boo ko xamee rek li may wax rek mooy di wax suñu mbokk jigéen di wax suñu yaay yi nañu yombalal xale yi ñu sëy xam ne xëy sëy du benn jour du ñaari jour. Mhm. xëy dix ans vingt ans la. Mhm. di leen ñaan rek. à l'éternité la waaw. Mhm. di ñaan ñëpp. di sant waa ñëpp di la sant di la gërëm bu baax a baax yow mi nga xam ne. sa plateau bu yànji bi. di nuyu waa FM TV ñëpp. di nuyu Grand Yoff yëpp. dina xamal tamit ñu ngi jëm si élection. élection yi nag ñu xam ne jaru xeex. jëru xuloo uh-huh. ñu ñoo bokk ndey uh-huh. ñoo bokk baay ku fi yàlla teg uh-huh. ñu xam ne yow fi yàlla teg ñu perte tam d'accord ku yàlla kum fi teg loolu rek laay am lu may wax waa Grand Yoff di la sant bu baax di la gërëm baax a baax merci bien kontaan naa trop kontaan naa ci sa invitation euh, sa mm-hmm. ci vraiment mm-hmm. kontaan naa di bokk ak plateau ndax yow mm-hmm. léegi moom sama sama naataangoo kontaan naa di participer ak yow émission bi wax dëgg yàlla kon ni ñu ko waxee rek euh, nañ def taxaw seetlu nañ xoolaat bu baax su ko defee kon ñuy gërëm bokk Grand Yoff Cité millionnaire ñëpp di nuyu waa Gargote ba wax dëgg yàlla di nuyu sama waa kër di ñaanal sama yaay di nuyu sama alaaji aas